سيدنا ومولانا محمد الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بكي جلدي بكي bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di seara siyaara di leen baal xaq te di leen ko baalu ci weer bu tedd muy chehru ramadan néegub yàlla muy jumaa waaye bisub ajjuma mi nga xam ne sangu bis yi di ci tuuba barab pàkk bu tedd bu sell la xam naa jëkkanteeg tomb yi di nuyu al imam cheikh cheikh Habibou Diop ak comité yi nga xam ne ñooy yëngatu ci mbir yëpp ci diggante ay journaliste asatida yi ak ñëpp ginnaaw buñ jagleelee sëriñ Mourtada ibnu cheikh Salih al Mbacke boppam ak ziaram tomb bi it di bu am solo mooy taxawaay wala personnalité wala nekk ko jigéen ci lislaam muy tomb boo xam ne li tax mu mat a jàllale ñi ci wax dañoo bari lool ak ñi ci bind te li ëpp ci ñi ci wax mbaa ñu ci doon bind na dañoo taxawoon ci beneen côté bi bëgg a attaqué l'islam kon loolu bu ñu demee ba ci ramadan jaadu nañ ñu jàllale ko ca waaye day mel na it soxna yi teewee woon ko te bari fi lool ndax seenu tema yu mel noonu dañ koy bàyyi xel yenn journaliste yi ci lu mel noonu baatub makaana nag ci arab mooy barab biñ la jox nga war caa toog mooy makaana soo ko feesee nag nekk li naan ku yàlla fañ ko teg ko la fa fekk bëgg laa yàqal te barab ba di sa barab ñu jàppe comme noonu te ku la ca jàppale ñu jàpp ko sab xarit loolu may makkaana kon jigéen ci lislaam waaye jigéen ci ak humanité muy lan mooy ndax njëkkas lislaam ay addiyaan samaawiya dafay amoon muy ay diine yoo xam ne ña nga jóge woon ci asmaaw ña ko yoroon nag yàggug ñooña waral nañu mujj dugal ci seen diine leneen lu ca bokkul kon loolu buñ demee tey ji ba bëgg koo jàngat bëgg a delloowaat jigéen gëddaam kooku lu yenn la lu ya- lu war a am bala ñoo dugg nag ci jigéen ci lislaam alquran dafa ay dafa wax ci ay masaaraat léeg-léeg day wax ci biir ëttub lislaam léeg-léeg mu wax ci pénc moo xam ne ñépp fa bokk nekk ña fa nekk nit dong lañ tudd nit léeg-léeg nag mu wax ci dong lay waxal nga ayuha nas muy nidaa am ilahi loolu bu ko waxee dane kuy nit laa woo kon côté humanité la yaa ayuha alladina amanu mu andi gëm ni waxatuma nit nit ku gëm laay wax yaa ayuha alladina kafaru nag mu tax siisaat ko ci biir ñooñu nag xamal ne kat kii ginnaaw bu nekkee nit ba noppi daal la nga ko gëm ñetti nidaa yooyu boo ko xamee ci ngay dégg ne léeg-léeg ci matlaxul aaya bi maanaam ci aaya bi fi muy tàmbalee ci ngay xam ba xam lii ci lislaam la jëm wala ci ñëpp la jëm saa yu jëmee ci ñëpp nag problème societé la société ci boppam bopp àdduna mooy yaa ayuha naas yaa ayuha alladina amano mooy société musulman loolu ma lu ma a bàyyi xel la ci siyaqul kalaamul quraan yi kon aaya bi ñu njëkk jàng société la buñ ko dégloo ndax lam cay jàngale mooy yéen ñi dëkk ci dëkk bi bu ngeen bëggee dëkk ci dëkk bi da ngeen di dëkkee nii ci dëkk bi yaa ayuha naa inna xalaqnaakum min dakarin wa unta bind naa leen ci diggante ñaari élément benn élément bi góor la tudd ba ca des jigéen te buñ bàyyee élément bi góor bi dong muy fonctionné dara du sotti niki noonu buñ bàyyee élément bi jigéen bi kese muy fonctionné dara du sotti mu ne min dakarin wa unta damaa boole ñaari élément yoo xam ne benn bi pilis la tudd bi ci di mooy suñ leen boolee nag boo ko petee étanche étincelle bi day daal di tàkk muy góor ak jigéen élément góor kese benn étincelle maanaam benn benn benn pilis lay doon jigéen ca kese di mooy il faut nga boole leen nag sawara yu door a tàkk muy min dakarin wa unta kon loolu mooy fii kenn tane wu fi kenn yéen ñëpp lañ soxla waa wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila def naa leen ngeen di ay peuple lan mooy peuple képp koo nirooleel dant di ngeen bokk ko jëlee daal yéen a bokk population mooy shu'ub qabila mooy mën ngeen a dajee fa ngeen di retirer seen i carte d'identité te du ngeen bokk qabila mooy diggante pël séeréer joolaa ak yeneen ak yeneen kon min dakarin wa unta wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila mooy fa ñuy jëlee kàddante yi léeg-léeg nga fekk fa guru bu pël mbaa nga fekk fa guru bu séeréer mbaa nga fekk fa guru bu wolof kon bañ nekkee seen i groupe ba noppi nag fi ñuy jëlsee seen carte d'identité fi la baatu bu di am bu muy peuple lépp nag yàlla neen li tax mu def ko mooy li taarafoo ngir ngeen identifié wu identifié wu muy ku ëllëg bu ëllëgatee nga xam ne yow mii yaa tudd diw sant sant nangam dëkk barab sàngam juddu barab waxtu sàng mooy li taarafu bu ëllëgatee kenn ku nekk xàmmee sama rob ne kii kat ci réew mii la bokk bokkul bokkul ci réew mee kii kat mu ngi bokk ci mawaalid 1980 waaye bokkul ci 1900 bokkul ci 2000 li taarafu su boobee ci taaruf bi nag lu am solo la tey bu ma bëggee retiré carte ci ci banque xaalis te yoru ma carte d'identité xamuñu ma duñ ma jox benn dërëm li taarafu so bëggoon def benn garantie il faut ma joxe sama carte d'identité ñu enregistrer sama matricule li ta'arafu suma bëggoon nit ki gëm li ma koy wax ne man Touba laa dëkk suma gën suma génne sama carte d'identité li ta'aruf kon ta'aruf boobu question sociale maanaam luy dellu ci ñëpp la foofu du diine yàlla dafa bëgg nit ñi xàmmente kenn ku nekk xam foo dëkk ak foo jógee ak yaway kan li ta'aruf loolu mooy sun mbirum diin mooy sun mbirum aduna satrul axir muy li des ci wax ji nag mooy in akramakum inda allahi atqaakum mbirum àllaaxira bu ngeen kuy jëli sa dantité daaf mën ngaa doon ku ne waaye nag te nit ñi ngay doone ku ne yàlla moom boo fa rëgalul yàlla doo fa dara loolu rek lay tegtal kon ba ma tàmbali yaa ba ci li taarafu question sociale nii ngeen di dundee ci àdduna pour mu normal la in akramakum inda allahi atqaakum nag mooy ba ëllëgatee bu ngeen bëggee jariñ yi ci yàlla ci waa lay aju taqawaa moomu nag seetuñ ca góor ga seetuñ ca jigéen ji gis nga ko foofu ñoom ñëpp ña ku fa yóbbuwul taqawaa rek perte loolu mooy al mujtama moo tax kon afdaliya bi mooy gënu góor ci jigéen walla jigéen gën góor mooy at taqwa wal amalu saalih ragal yàlla tey def lu baax ragal yàlla tey def lu baax su ko góor ga defee moo gën jigéen bi su ko jigéen ji defee moo gën góor ga suñ ko bokkee def ñoom ñëpp ñoo yem suñ ko bàyyee ñoom ñëpp bokk yées loolu alxuraan gise su ko defee nag musaawaat muy égalité bi nekk seen diggante nit ñi dañ ciy jóom tubaab yi dëgg la danaa ñëw ci kanam tuuti niñ jëlee égalité ak njuumtee ndax dafa am ñaar yu bokkul bin ya tëggiin yu bokkul fit yi bokkul nga ne dañoo bëgg a bokk yem déedéet am na nag fu ñu yem du ko weddi waaye bu ñu demee ci biir waxtaan wi dana gën leer yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo leen égalité ci lu gaaw dane an nisaau shaqaiqu rijal nee na góor ñi jigéen ñi ñooy seeni mbokk mooy ñoo bokk mustaq mooy ñoo bokk fu ñu leen jëlee fu ñu leen jëlee mooy lan ñoo bokk am ndey am baay jóge ci benn bakkan dana leer léegi ci kanam insha allah rabbi jigéen dafa am luñ ko sant loo xam ne moo ca spécialité wu moom kese am loo xam ne góor da caa spécialité wu moom kese am shay'un mushtarak am loo xam ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk ñoom ñaar ñëpp ñoo ko war a bokk di def tubaab yi nag bi ñëwee seen njuumte dañoo jël lépp xëpp jigéen ngir bëgg ko def ngir bëgg ko taxriir ngir bëgg ko lib maanaam may indépendance noonu laa ko mën tuddee ndax ku nekk xam na ne ambu wasin nàmpal yar sang boot moom métier ku ne xam na xam na ko ko moom fi ne nit du rakkaaju wala mu bëgg parti ba ne lii góor dana ko def amul ci àdduna kon loolu jigéen rek a ko man gone gi bu juddu woon tey ñu def ñu tekk ci benn soo di ko seetaan bu fa amee 3 mois ku malforme lay doon ci anam yépp tànk ya day dëng loxo ya day dëng bët ya day jël bopp ba du du normal la ko waral mooy neng neng ji yaay ji neng nengal ak bës gi muy bés a kat yooyu mooy tax xale bi am forme bu normal boobu muhim ma gën góor moo ko toog cib lal buñ la dénkoon xale bi képp bu jooyee ñetti yoon bu yaayam demee ca pénc ma ca pénc ma nga koy fekk ne ko sa doom ji pourtant yaa ko jur yooyu bàyyi bi waaye sa doom ji nga koy wax fokk lu ma ta bàyyi xel kon muhim ma bi dafa nekk luñ séddale ci ñaar jigéen lim ci yanu góor du ko masa mane ci àdduna moo tax yonte bi salaa salaam la mu waxoon soxna yi ba mu toogee ñoom dana leen xaamilaatu waalidaatun raximaatu xol ma doom yéen de yéenay ëmbkat yi yéenay wasin yéen yërëm yërëm jigéen ku mën a yor doom ji boo bu ko bàyyi yoroon sax bu ci war andi sama doom te bàyyi dee ko yor bàyyi bi bàyyi bi bàyyi boo ko bu ko bëggee def andi sama doom kon rahima batu rahma day lu rëy yonte bi ne nag yéen soxna yéen ëmbkat yi di wasinkat yi tey yërëmkat yi xanaa kon yéen ñu baax ni dajaa teg ne dogon kon ak li ngeen di def ci seeni borom kër ci ay safaan ku ciy julli bu dee dem aljana waaye leen fa gàllankoor nag mooy da ngeen di xaw a fippu léeg da ngeen di xaw endi indi ay jafe loolu rek moo ma jaaxal ci yéen kon nag ar rijaalu qawwaamuuna ala nisaa bima faddala allahu baadahum ala baad lee mu leer góor ñi ak jigéen ñi ku nekk yaa ngi tekkee xawaama nu ne xawaama mooy kenn ki daa taxaw kenn ki toog ku nekk xam na ne ki toog ki taxaw koy defal service ki toog mooy jigéen ki taxaw mooy góor kon ki taxaw mooy dem di wuti mooy andi mo mom lañuy tek ay jafé jafé ki tok diko xaar bu diké mu nim ko joxon lepp bu dépenser muy qawama ar rijal qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'd muy yeen ñepp kenn ku nekk lu mu jago ci ngeenel lo xane morom ji amuko bima faddala ba'dhum 'ala ba'd bu jur dessé ak yar jigen ya am ndam bu dundal dessé ak topato goor ya am ndam kon fadlu bi ñom ñaar ñepp dañ ko pat dañ ko partager bima ma la ba'dhum ala ba'd moy gor bu dikke bu defé la ko war amna ngeenel ndax jigen mënu ko jigéen bu defé la ko war amna ngeenel ndax gor mënu ko loolu nag buñ ko tamhidé dañuy da dugg ci waxtaan nak légui léegi mubaasharatan kon lan moy al mar'a lan moy jigen ta'rif dañ ne jigen moy genn walu peuple bi population bi genn walu jigen ko kenn du ko benn amna ihsa yi ya sax yu bes yo xamne dañ ne 120 jigen yu ne 90 goor nek ci suuf 120 jigen yu ne 90 goor mo mo nek suuf lool nak tobi man nay doliku toujours man nañu dem ba 140 goor sax 80 goor jigen nek ci suuf desu ko ben waye lu mëna xew dal jigen moy genn walu peuple te li dess ci genn walu gi jigen ko jur kon mom moy moy peuple ko xamne yow ay genn walu buñ na jigen ñi dem leen taxaw fe bañ taxaw fe ñii taxaw fee ak ñi taxaw fii ñëpp jigéen a leen jur kon jigéen ay peuple bi déggin wu yomb la koo xam ne bu ñu jigéen ñëpp ay góor dañ taxaw ne ñu taxaw ne nga ne yéen ñii yéen ay góor yéen ñii yéen jigéen ba am juróom fukki góor ak juróom fukki jigéen jigéen dañu yëkkatiwaat ne leen nooy seeni ndey ba léegi kon mooy mooy genn wàllu peuple bi jur li ci des kon kooku makkaanam maanaam personnalité am bu réeré la war a doon moo tax kon dund mënta am ci jigéen parce que mooy mooy mooy moyen bi gannaaw boo amee plus moo tax suñu borom xalaqa zawjayni dakar wal unta xol dama bind ñaari ñaar ñaar ab couple couple bi kenn ki chatru bi mooy shaqu bi mooy genn wàll gi mooy góor ba ci des mooy jigéen léegi nag lu tax mu ne pour ma compléter ak dund kenn ku ci ber woon doo am doom ma boole leen yéen ñépp ngeen di am doom kon mooy suñu borom dana taxawal kon ab aduna su ko defee nag jigéen moomu nag li ko islam njëkk a jox cër mooy daf ko ne fa ñuy retiré bon ya fa ñuy dugale chèque ya fa ñuy jëlee lu baax ëllëg boo fa demee fekk fa góor gu baax da nga fekk jigéen ju baax ci wet ga boo fekkee góor gu gëm da nga fekk bu jigéen ju gëm ci wet ga ila akhirih te loolu mooy xaq bi nga xam ne jigéen am na ko ci jaamu yàlla suñu borom subhanahu wa taala yem ca ak góor képp min haythu tartib boo ko dee wàññi ñoo bokk yam inna al muslimina wal muslimat wal muminina wal muminat wal qaanitina wal qaanitat nga xam ne ku saa yoo nee góor gi ab jullit nee nga jigéen ja ab jullit góor gi aji gëm jigéen ja aji gëm góor gi ab jaamkatu yàlla jigéen ji ab jaamkatu yàlla góor gi ab kat jigéen ji ab saraxekat góor gi ab jigéen ji ab amul benn ci aaya bi ba ma mi wax ci ajran aziman ja lu góor am te jigéen amu ko amul foofu kon ñoo yam xaq ci jaamu seenu borom subhanahu wa taala waaye ñoo yam xaq bu ëllëgatee bu sun borom fayee góor day fay jigéen man amila saalihan من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم وأجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ñi def lu baax min dakarin aw unta moo xam ka def lu baax góor la moo xam ko jigéen la danañ ko dundal fii ci àdduna mu am jàmm ba ëllëgee ci àllaaxir des na ko fay kon foofu àq ji góor ak jigéen ba tey ñoo fi bokk yem jigéen amoon ay jafe-jafe ca yeneen société yu njëkk ya ndax ku masaana am doom ju jigéen la ñuy ne sa soxna jigéen la am da ngay bàyyi gaaram place ya dootoo demati gaaram place dootoo demee si place publique da ngay nëbbatu ñu ne ay waay diw de ndeysaan fan yi gàcce da koo dal ñu ne luy gàcce ga ñu ne dafa am doom ju jigéen xoolal ma lii doom ju jigéen a ko tee génn naw leen nga gis ko ba ñaaree nekk ci kanamam comme solution suul ko muy xoole mbaa bu tëj ko ca kër ga kenn du ko teg bët ku ne xam na ne tey boo am andi woon sa ngay nattali sa doom di nga am ca kër ga nga nga xool ne sa doom ju jigéen jooju ni ngay sonne ci moom tey islaam tax ngay na ci moom waaye commencé na am doom ju jigéen du ca jéem a sonn la muy def mooy day bëgg a ko moom ci nii mbaa ca ne ci nii mooy suul muy xoole ca ne mooy bàyyi ko ca kër ga tëj ko lu ko waraloon dañ daan wax naan gone gu jigéen mënta yenu ngànnaay geer te ñun gone yu góor yi dañuy dañoo bëgg ñu geer comme mënta yenu ngànnaay geer nag ñaar lañ gis muy solution boo xam ne jigéen am na ko mooy nekk sa kër boo amee problème mu yuuxu yuuxu yu sonal la wala mu dem sàcc alal jëkkëram yët la lii rek lañ jàpp wala jigéen mooy am métier loolu moo warloon na ñu ne ginnaaw dafay mënta geer te bu màggee dafay nekk di yuuxu léegi nañ ko rey ba yuux yi dakk bi ki des mooy nee na lu mu lay yët lu nekk da koy sàcc ci alal alali jëkkëram nañ ko rey ci amul njëriñ lii moo taxaw ñuy ñuy suul jigéen muy xoole bi alxaan dikkee ko bëggee na ne wa idal mawudatu su'ilat bi ay dambin qutilat mu ki nga xam ne nii ñu ngi nii di ko suul muy xoole lan la def te boroom xel boo ko posé question il faut mu jéem a tontu lan la def jooju bu bàyyi di xoolee doom ji defu ko dara ndax day door a juddu tooñagul yoon tooñagul baay باي yaay alquran ko nettali ci beneen aaya bu gën a xóot wa ida ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون نقول القرآن أتى بشار بشار ديو أمنا دوم الحمد لله موتي تجي بشار كيني نكون الحمد لله سوانا سمجين والله وجهه مسودا ميندو سفير ميندو سفير وهو كظيم يندو بروكي مرمي دي بغا تك يتوارى من القوم من سوء ما بشر به بان كو يغني امنا دوماي تخ با داي نبوتو اي خريتام دوتين بغا ني نان كو سوخنا سا نوم ديف نيا نعم. ايون سكو على هون da koy bàyyi ca kër ga muy ko doyoon yi aw yadussuhu fi turaab wala mosul ko muy xool ala saa ma yaxkumuun mu ne atte yu bon na bon na bon mooy atte ya nga xam ne moom lañ naan atte njëkk si lislaam foofu ñaari boole feeñ ni ci ala saa góor ga daneen saa bañ tooy juróom la saa fa saa wa saa ala saa saa ma ba alxuraan bi saa bañ tooy kon islaam ñëw daal di tere nag bu leen suulati seeni doom ñuy xoole nit lañ ne yéen nit ki nu ko neex war naa mën a mel bu fekkee daa am jigéen ñoo xam ne da ngay futtiku di def la leen neex ñu bàyyi ko ca war naa am yeneen jigéen yoo xam ne dañoo war a tokkoon di def la leen neex ci lislaam ñu bàyyi ko ca noona la waatee société ba jël wallahi alazim moo tax matal benn waaye waaye dafa léeb ne daa ñëw fekk borom xar yi ñak fi muy yeew xar yi ñak ko ba mu dëgër ñak mooy mu miire ko toog ci buntu ko nee ñoo ne xare yéen day waaj na leen di fontoo tëj leen fii rek seen moromi xar yépp ngi ci àll bi yéen ngeen tëju nee na xar fa di yuuxu di manifesté ba waaj ubbi bi ñuy manifesté nee na leen bu leen génn ñu ne ko non non li tili yi wax dëgg la yow yow dañoo dañoo dañoo dañoo xañ suñu liberté bañ waxee ba mujj yi mënuñoo ñàkk a bunt ba nekk ca bunt ba ah waaye nag bunt ba nag yoo ay yoo xam dem tëdd këram ca suba sa mu xëy di seeti ay xar ndeke xar yaag tili bañ àggee ca gent ba gent mooy ca gannaaw kër bi mu fekk fa ay des yiti ay ay ay béjjën ak ay derak yu mel noonu mu ne effectivement ñaan nañ seen indépendance bañ may leen till ya ba panas, ñaan indépendance ba xale am indépendance bëggoon a jëriñoo xar ya tubaab yi bu ñu bëggee jëriñoo jigéen ñi dañ leen di ñaan indépendance bañ jot ko suñ demee ñoom ñoo kon yonte bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci lim seqoon ak jigéen jégleel jigéen bisub lëm boo xam ne bu jotee jigéen ñi rek lay jàngal professeur bu toll ne sallallahu alayhi wasallam jégleel ay soxna bis boo xam ne bu dikkee ñoom rek la cay jàngal yaakaar naa makkaana personnalité mënta passé lool cheikhul xadim cheikh amadou bamba bi mu nekkee njaareem su ma saan dem ci penc ma wax jigéen ñi ba noppi daf daan ubbi buntu gannaaw bi daal di jàkkaarloo bu waxee góor ñi ba noppi day jàkkaarloo jigéen ñi ne leen na ngeen jaamu ci seen borom te wéetal seen borom ni ko sallallahu alayhi wasallam daan kon jigéen bi yàgg nga yeroo ci keppaaru borom baax daan na jël wàllam ci ci daara yi rek ñun ñi ci Cheikh soxna yi dañ daan jàngi ni góor ñi daan jàngi daan liggéey liggéeyu kër na góor ñi daan liggéey ci liggéeyu tool daw ànd ca tool ya daw jaxasoo ci jàngukaay ba waaye kenn ku nekk yaa ngi def la war sallallahu alayhi wasallam li wax ci jigéen ci tënk yóbbaal na lépp mooy def ne istawsaw bin nisaai xayran rikk yàlla ngir yàlla góor góorlu leen ci jigéen ñi def ci yiw baatub xayr baatub dafay baat boo xam ne lépp lay tekki mën nga ne xayran joxel jigéen alal xayran mayal jigéen jàmm xayran yërëmal jigéen nga xam ne baatu xayra mooy lépp lu xel mën a daj te rafetlu ko rek yonent bi saasam nee na jigéen yaa yoona lool istawsaw bin nisaai xayra kon bokk na ci li ko suñ borom jox mi personnalité jagleel ko saaru boppam te boole ko ci saar yu bari ni nisaa saaru jigéen ña te weneen saaru buñ bëgg a régler adduna jigéen dina bokk si kon am na wàllam bokk ci lépp defu ko rek moom jigéen muy luñ bàyyee góor mu cay soppandikoo lu ko soob loolu amul bàyyiwu ko ci góor muy soppaxndiku ci moom lu ko soob kon taxarrur muy liberté islam moo ko njëkk jox jigéen ko keneen والمطلقات يتربصن بانفسهن اربعه اشهر xolam lol ñi nga xamne leena fasé nañ dem togi seen kër japp iday 4 mois suñ ko bayyi wona goor day fasé tay bu suba jamm mu jël bu gënal suba mu fasé wat dedet ñu ne ba fasé ji indépendance total dem neggandiko ci bop kon lolu bokku na ci liñ ko may kuñ respecté xalaatam la mom jigen bu xalaatee dañ ko daan déglu sallallahu alayhi wa sallam daana déglu daana dellu lu bare bare bari ci ay xalaat yi ay soxnaam naa da yent bi sallam xëyee sant saxaaba yi leen da ngeen di defar seen haddu yi ay jafe-jafe amoon ca ba ko ba ci diisal soxna da ko ne yow lii ngay wax ni def ko rek soo ko defee ñëpp def ko sallam daal di rey am haddu yoom daal di watu ñëpp daal di koy def boobu xalaat ci jigéen la jóge woon te booba dem nañ ba yëfi critique situation critique yooyu yoo xamante lu muy def ak gaa yi ndax sax sant leen dara lànk nañ noonu lañ ko mën a tuddee nekki noonu islam ñëw ne xalaatu jigéen dañ koy respecté qad samiha allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha allati tujadiluka fi zawjiha xawlata bintu taala la tuddoon a soxna la am mag da ko yoroon ko xaw a ange tuuti ñu sëy ba am ay doom waaja xëy wax ak soxnaam ñaari baat mere soxna sa daa di ko ne su ma la naretee xam naa xam sama yaay noonu la ko waxee ci baat te loolu bu ko arab yi masaana def dañ lay taqaleeg sa soxna force am talaaq lañ ko jàppoon posé xawlatan ñëw ci yonent bi salaa sallam ne ko sama borom kër daal daf ne ma daf ma niroo léegi yaay yonent bi ne ko ah man de loolu mënu ma cee gën a wax dara li feeg yàlla waxaguma ci dara te waxaguma ci dara dossier bi daal ngi en cours mais jottu ko ci réponse xaw na daal di tàmbali yëkkati loxo ci asamaan nan ko yàlla jàppale ma ci lii mu leer ndax sama jëkkër ji ma yor am naa moom ay doom su ma ko bàyyee ak doom yi ah man danaa am problème te su ma yoree doom yi doom yi danañ xiif kon nag damaa bëgg nga àtte ma ci lii sama borom kër wax tey lan moo ci àtteb lislaam ba mu ko defee di ñaan ci wetu yonte bi sallallahu alayhi wasallam ba yàgg yonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñëwal yàlla andi solution qad samiha allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير ادما الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ñi nga xamne naan sama yaay ak sama sama sama sama soxna du deug du talaq lan la bakkar la lan la lu leen war a teg ay sanction la waaye du talaq xaw daal ne alhamdulilah rabbil alamin kon sama jëkkër wëccu ma sama jëkkër wëccu ma daal di nekk ñu ne ñu indi sanction yi nag teg ko ci ñett dangay ngay woo leel juróom-benn fukki miskin mbaa nga woor ñaari weer mbaa nga gorew ak jaam bàkkaar bi door laa wàcc te boo ko tàmbalee di def day mat wa illa do saña sa yek soxna si boko def ba yag de sa yek soxna si day yakwa manam fidiya bi day yakwa kon lolu xalatu jigen mo dox ba lolu arrêté sino kon ba legi ma deta liko japp am passé ku wax lolu sa jabar rek dang koy passé kon yalla jël na xalatu jigen ci kanamu yunus bi sallallahu alayhi wasallam reglel ko jigen yunus bi di tek suratul nisa saaru beru la ñoo ko moom boo demee ci matlaxu suura bi muy tàmbali saar bi yaa ngi ci gis suñ boroom la mu a wax mooy na ngeen xam ne yéen ñëpp benn ngeen yaa ayyuhan naasu taqu naas mooy maa ngi wax ak waa adduna amanu maa ngi wax ak jullit yi kafaru maa ngi wax ak yéefar yi kon ya ayyuhan naas nag américains yi ci lañ chinois yi ci lañ ak ñëpp yaa ayyuhan naas يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة نين رجل سين بروم مين خان مولين بيم تي بن بكر ملاحظة نينا نكال نياري بيد جوجي تي مين بير مين ماي گن ما جادس كوكو باسا ديك من نفس واحدة ان تانك بن بكر نياري ماتي بريمير يكون گنمتي مو من نفس واحدة مو ين بوك فين جوجي وخلق منها زوجها ci bakkan boobu ci la récupéré jëkkër ja ma maasu ki soxna sax xalqa dañu takraarul madda la wa xalqa minha zawjaha dañu xalqan mustaqilla borom xam am na ci ak wuute waaye loolu c'est pas intéressant li am solo mooy aadama ak xawa ñoo bokk fu jóge wa xalaqa minha zawjaha ba tey nee na lépp benn la ginnaaw kii ci laa bind kii moom ñaari matière première yi amuñu différent duñ ne kii chinois yi ñoo ko defar américain yi ñoo ko defar wa xalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathiran wa sa suñ borom ne ñaar ñoo ñu ma defoon muy aadama ak xawaa ci laa yulli yulli yulli nga jël ab saako def ca lu bari jàpp ca catu saako yooyu yëkkati lépp ànd na ne wasal mu ne ci laa yulli nag lépp luy góor ak luy jigéen lépp luy góor ak jigéen mi ngi jóge ci benn matière première boo xam ne kon gënantiwul kon mooy tanaasul su borom ne bind naa ñaari élément yoo xam ne ci laa continuer lu baree bari soqi ko ca moo tax ñu ne ko ku rey benn bakkan mel nga ne rey nga ñëpp ku dundal benn bakkan mel na dundal nga ñëpp bu ñu demee ci marjan bi bi aadama juddoo bu ñu reyoon xawaa ndax danañ am di hëdd kon ku tey jii fi ñu toll ku jëloon benn xale bu jigéen mu juddu nga yor ko ñu demaat ñetti junni at ci kanam xale bu jigéen boobu bu ñu ne moo jur lii lépp da nga xam ne kon dundal rek am waaye soo ko rayee éliminer ko it da xam ne ray bakkan dara jël moo tax kon ñu ne wa man ahyaha fa ka annama ahya nas jamia ku ko dundal mel nga dundal nga ñëpp ndax adama ak xawa ñaar lañ woon nu mu wusukaan bi muy développement bi nga xam ne nit am na ko ci lañ dem bañ naan 14 millions sénégal 25 millions maroc 45 euh, millions Irak. ak yeneen ba ci chinois ñi nga xam ne ñoom ñu bare bare bare lépp mi ngi jógee ci ñaar ñoo ñi nga xam ne mooy aadama ak xawa wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa nee na ñëpp fa jur nañ jigéen jur nañ doom kii góor wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arxaama nag li muy tekki mooy ginnaaw yéen a bokkoon fu ngeen jóge yéen a bokk benn biir bu leen jur bokk benn bakkan boo xam ne ci lañ leen jëlee na ngeen sàmmoonte kon seen bopp seenum xeet na ngeen sàmmonte ak seenum mbokk wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi wal arham mooy ginnaaw lépp benn la bu kenn bedd ko ñu naan góor ga daa nekk fële jigéen ja nekk fële déedéet lépp benn la ari ga des nañ ko laaj inna allaha kaana alaykum raqiba nee na man mi ko wax nag maa ngi ci bunt bi su mbam dal la defal li ma lay san ndax maa ngi ci bunt bi maa ngi ci bunt bi nag bu la ko sa kilifa waxee te léegi dugg ci biir war nga def lam lay sant kon nag nañ laal tuuti ci jigéen avant l'islam islaama ngoog ak jigéen jox na ko xaqu ta'bir fi ra'yi sañ naa wax xalaatu jox na ko alalam mu sañ koo moom soppax ndi ko ca nu ko soobee jox na ko bu amee jaaxle sax bu tàllee loxo yàlla asama wuyu su borom nangul ko ak yu baree baree bare njëkkës islam nag reconnaître ñu woon jigéen benn ak amu ko benn jigéen dañ ko daan fekk na ko defal nangam ki ko defal nangam du ko xool ba xam dana ko defal mbir bu dikkee bu ko deful rek yab laa koy wax yab yab dañ ko daan toroxal amul indépendance ci dara sëñ te génn di wax dara moom daal na toog di déglu digel suñ ko waxee mu dar gi bi ñam am na benn mu ne kii di jigéen ayam waa ngi ci làmmiñam bi da daan jël musóor gi tak ko ci giwiñu eh, ndaw si ba mu dëgër ne ko booy nga rek di toj man di toj dëkk bi boo ŋaar da ngay toj dëkk bi moo tax yoral sa gimiñ gi ginnaaw dafa aay sa làmmiñ bi doo ko tëyee naa la ngalab ngalab benn teg ca tëj ko ca kër ga du sañ a génn xañ ko ndono moom du doon waaye des koy doon nit bu masaana faatu soxna ya ben gor day ñëw sànni ko mbubbam bu fa sanni mbubbam lamay muy moy mako maa su fa keneen sànniwul mbubbam bu yefe jalle mom soxna soso mu sànni sanni mbubbam moo moko mo su ko nexé nak jël ko jëfandikoo ko su ko nexé jaay ko keneen ñu waxale mu ne ko man ma fa sanni sànniwul sa mbubb bay ba nga jël ko jox ma nangam lolu wala tarifan nisaa karhan afan ko wax bàyyi leen jigéen ngeen di force ci tey may sa jëkkër mbaa force tey may sa kilifa niki noonu li ko góor doon doy rek mooy jural ko dañ ne woon bii xayawaan bi leen mala lenn képp la am njariñ muy jur bu juree ba noppi amatul njariñ société yu njëkk ya noonu lañ gisee woon bi ci des ñenn ñi dañoo ji tudde woon jigéen seytaane nga xam ne moom sobee la soo xam ci seytaane la bàyyi koo moo tax laabut ba bu jigéen tolloo ci reegal duñ na nangoo lekk ak lekkam duñ nangoo dugub néeg loolu lépp ay sabotage yu metti ba ci soo demee ca alxadaaratul yunaaniya ñoom lañ defoon jigéen mooy dañ koo jëloon def ko benn lu ñuy jaay dañ koy toilette ba mu jekk ñuy yóbbu ci place publique yi muy def daanaka mooy li yi def léegi rek muy wëllax ba xam góor ñi dañ ko bëggam déet politiciens yi ak ñi bëgg a passé temps xool fa ña bëgg a xool xool ñi bëgg a def leneen def leneen ah ci lañ demee ba mujj tàmm guñ tàmm lu mel noonu liñ tuddee sexualité muy sëy góor ak jigéen posé woon problème ci ñoom ndax tàmm ko tàmm niki noonu soo demee ca waa romain situation jigéen fa la gën a compliqué dañ ne jigéen moom amul baat amul wax borom kër gi moo am baat moo am wax lim bëgg ci jigéen ji mooy am mu neex ko mu naqare ba tax na jigéen buy am doom foofa soxna si mënul ta waat ne borom kër gi mooy sama bàyyi doom day am doom andi ko ci wetu borom kër gi teg ko fa dem <clears throat> di ko séentu bu ko borom kër gi yëkkatee ci loxoom mu ne alhamdulilahi nangu na koo jur su ko fa tegee dem mu ne wuy sama nangu na koo jur damay bàyyam de moo yore ndaw si ci biir mais day tànn ba xam ndax dina jur jii doom wala du ko jur parce que démb damay waxaat ak soxna mu ne moom dafa am doom daaw ma ne ko waaw mu ne ma nag erreur bi mooy sama borom ko dana moon bul am doom ma am doom xool ma lii ma ne ko lu cay erreur mu ne daf ko naqari ndax dafa bëggoon ma bañ a am doom te man am naa nak léegi nag mu nekk sama diggante moom problème waaye nag lu bon bon nangu na jur mer na ndaw sa ba ngi bu day daw bi di yër bu bàyyi ba yëkkatee mu ne nangu na koo jur su ko fa tegee dem mu ne juru ko te kat dootu sant aw sant mukk lan moo cay fexe ndox soxna si day daal di jëlaat ndaw si day jël doom jooju yóbbu ko ca fa ñuy jaamoo may ko yàlla ja wala mu yóbbu ko ci benn place wàcc ko fa muy xiif ak mar ba dee waaye du ko yor ci biir kër gi ndax bàyyam nanguwu koo jur boobu boobu madal boobu maskana boobu toroxtaange avant islam loolu moo amoon kon sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee ne xaamilaatu waalidaatun rahima ëmbkat yi wasinkat yi yërëmkat yi xoolal ma boobu est-ce que kii fi mu jëlee ñii soriwul est-ce que fi mu leen yóbbu gënul seen jëkkër waxatuñ ne ñooy jur waaye yonent bi sallallahu sax moo ñëw taxawal leen sol robbu avocat ni leen yéenay yaay yi yéenay nampalkat yi yéenay toppatookat yi dogon ko nag li ngeen di wax seeni boroom kër ci léeg-léeg ci ay xuloo ku ci faat tey julli da nga dem aljanna nekki noonu xañoon na leen seen àq ba limub jigéen ci góor amutoon da nga gis jigéen di góor gu denc 40 personnes génn góor denc 60 personnes te ba ko neexee benn yoon képp ngeen di séq àdduna mu bàyyi la fa sa ngir dund dootoo ko gisati te doo dem parce que amuñu ko woon fase naa la junni yoon ak fase naa la ñaari junni yoon ak lu nekk lañ daan wax islam ñëw ne leen nag mayetuma lenn lu dul ñeent gën jaa bari te ku ko mënul na nga yem ci benn te benn boobu sax bu dee sam nawle mënoo ko takk na nga dem seeti koo xam ne yaa ko xaw a su tuuti ñu tudde ko ab jaam nga takk ko ngir nga mën a sàmm sa diine kon islaam andi na jigéen ne ko foo mën a jaar da ngay jar bu fekkee da nga nekk al sharifa na la ar rajulu sharif takk su fekkee dangaa nekk ad dania da ngaa am danaatul lenn na am nga couple léegi olof naan léegi bu nekk am na duppi arab mel na ñoom waa romeya ak waa yunaan ya ñoom ñoo fi andi woon suul muy xoole kon akam ak xam yàgg nañ ko caxat caxate yàgg nañ ko koo xañ bi islam dikkee la ko ne doo kooku ñëwal ma dellu si suñ dellu si waatee nag ñun ci sun afrique gii ñëwaat bi ci sun dëkk bii di sénégal di ma ko waxe woon léegi njëkk si lool sax imam shafii yaay ma ko yar hanbal yaay ma ko yar ñoom ñëpp seen yaay leen dugal daara taxaw leen bañ jàng alkasaa'i madhab la ci luxa ak sarf madhab alkasaa'i moom nga dégg nga xam ne ku fooroon la ci jàng ak soxna soxna su jigéen moo jël ci loxol doomam di ko yóbbu ca daara ja romb kasaa'i yu muy sàmm ay xar kasaa'i yu mi ngi am 40 di sàmm ay xar soxna si ne sët bi kaay jàngi bala ngaa mel ne kii nga xam ne ab sàmm doom la kasaa'i wax dina xare mu dal dem ci kër ga delloo xar ya tak ndigam dem jàng ba tey jii bu ñu waxee ci sarf mbaa wax ci luuxa mbaa wax ci dara masabal kasa yi wéy 40 ans la amul jëm ak soxna ku yóbbee su doon yóbbu doomam ab sëtam te daara kon soxna yàgg naa taxaw góor mu jàng waaye yàgg naa jàngal boppam itam di koo xam ne dafay ci njàng borom xam-xam yi dañ borom xam-xam yi dañ Aisyah ku baro ku hadis yu mokal ndax hadis al top ko mokal bari ngay hadis waye nak li ëpp ci li islam di mu'alaja jadi kofat, faj da fay delu wat ci jigen tay lu goor di def rek jigen dana ko def te amna lu bari lu jigen di def lo xamne goor du ko def legi nak kon motax nak kon goor mo jigen mo gëna yeyo deg fekk goor problème règle problème jur problème eh, eh, eh, gëzine yooyu yëpp góor dañ koy dégtal rek dégtal dong la waaye mos see gis benn kon nag bu góor jàppee jigéen jàpp góor sangu jigéen sangu ba noppi jigéen di jànkoonte waat ci dundam loo xam ne góor xamu ko moo tax yonent sa sallam ne na di jël seen génn wàllu dund ci soxna si ndax am na loo xam ne daf leen dépensé ci ah isa ngay ñëw mën na lan lan lan mooy kudura la nii lay mel tey da ko jàngoon dong nga xam ne lu leen ci laaj buñ buñ bëggee laaj dara masala boo xam ne dafa dafa sensible dañ ñëw laaj ko ko mën leen loolu mooy nangam nga xam ne bu luxa bi li muy tegtale pratique bi da koy gën a xóot soxna jaara busa radiyallahu anha 33 ans rek la am te boo ko tuddee ci ku ko xamul nettali ko ay jaroom danaan ki am na 120 ans ci lan nangoo jàng nangoo jàngale yaru nangoo yare Sëñ Tuubaa ku mën a doon fekk na fi njàmbaaru soxna Bousso bu jant masaana so li jigéen daan def mooy dajale ay waa këram di leen léebal ak a caxal cax cax naa la caqet soxna jaar di leen di dajale bu guddee naan leen gaa yu baax yi diw daf daan fanaanee jaamu yàlla diw daf daan yendoo woor di ko dugal ci noppi ay doomam bu ci ëllëg sax ñu bis ku baax ci tàmbali ko jëfe ni mu daan wooree boobu daan xëy dem ci àll bi balaa ñëw jant bi soo te boobu dalagul jàng bu ñëpp tëddee ñu seen ko ci digg ëtt ba ndax dafa waxoon daa dégg ci yaayam mu ne ah nit ñu baax ñi dañ daan fanaanee julli ñu gis muy fanaanee julli kon sëriñ bi nu mu mën a toll rek fekk na fa way jur woo xam ne mën na ko naa toll kon loolu mooy dawrul mar'a fi baytiha bisu yent bi saasam dikk ci riaya muy sàmm daf ne kenn ko nekk ak la ngay sàmm ak fañ la ko sàmm loo sàmm yépp mënuñu nekk benn li ñu sàmm lépp it mënta nekk benn mu ne nag jigéen am nag càmm ci biir kër jëkkëram des na ko ko laaj jigéen am nag càmm ci ay doomam des na ko ko laaj jigéen am nag càmm ci alali jëkkëram des na ko ko laaj naka góor itam am nag càmm ci njabootam ma jeexale benn aaya rek muy wasayna al insaana bi walidayhi na jigéen mi ñu wax ay jalooreem wax ak mbaaxam wax ay bari bari lu bari lu mu def لن موت سن برم بمني ووصينا الإنسان بوالدي حسنا سن برم دنكنا نت كنك تسنياري ويجور نيك حسنا مك خيرا أك شرا نيويم دي تكي لنا دفناري باي باي فلي حملت أمه كرها ووضعته كرها بمجيخ برم خم خمين لن موت خمينه xale bi dafa war a topp ndigalal ñaari way juram waaye waxuñu nag lu bàyyi def li yaay def dong lay wax yaaya ëmb yaaya jur yaaya nàmpal ci durant 30 mois ak leneen ak leneen ñu ne waaw li tax ñu beral yaay lim def yaay lim def dafa yomba fàtte kenn fàttali ko ëmb bi nga nekk ci sa biirum yaay kenn du ko fàttali kenn du fàttaliku bi nga bi nga saxee sa weenu yaay kenn du fàttaliku bi la sa yaay di sang yàlla nag ne xaaral ma duggal géew yaay nett lil ko lim def te mënu koo wax te buñ sàgg nañu fàtte saa fasu baay saa wata baay saa tool baay saa kër baay saa jëlal baay ñépp ko mokkal yàlla bañ àq ji nëbb nag mu ne eey kaay ci yaay te booy ñëw ci yaay da ngay bàyyi bi jigéen wir romb rek ci naaj jër nga xool ko la muy daj biir ba da koy jiital mu am ay xolliku xolliku ca yaram wax yépp sopp mu ne ah mu ne foofu dawalal sam xel ne mas nga def ni sa yaay xamalatu ummuhu kërhan wa wadaathu kërhan nga romb ku ne ah daa ko diggante xolal gis nga jigéen saa yu tàmbalee dugg ci grossesse léppam danger jigéen yi wéru kooku dootu wér daa tollu diggante diggante moom dugg di dund dee la daa jàpp lam jàpp bu përëcee mu faat lépp jigéen yàlla na ne xamalatu ummuhu kërhan wadaathu kërhan wilaada bi rek dafa am kërahiya ndax bi ngay dem ci hôpital bi xam boo xam ne nga dellu si ba kanam déet lu nekk nekk yàlla nag ne kon lii bu ma ko fàttaliku bu ma la ko fàttalikul yow xale bi ngaan saa oto bàyyi ba ak saa kër yi bàyyi la ak saa njëlal bàyyi la yaay day perte kon loolu moo waral suñ borom duggul ci détails yu li bàyyi def ndax dafa terre à terre chaque jour nga gis lu bàyyi def te li yaay def boo sàgganee doo ko gis kon loolu rek doy na sëkk makkaana suñ borom jëlal la paa ñett li la say jëf ginnaaw boo xam ne tuuti kon ñu fàtte ko mbokk yi jamono ji ñu toll li doon li ustaas doon wax léegi ci mbirum jigéen ak wax yi ci bari lool 2006 hmm. am na benn kilifa gu bindoon ci réew mi maa ko lire ci journaux bi démb ci journal bi mu ne Sénégal dañoo war a mel ni Europe wax ju am solo la il fokk ñu jàllale ko comme yaa ko dugaloon ci sa wax ni mel ne Europe nag mooy dañuy wut benn soxna ak ñaari doom pour ñu mën a assurer seen sécurité moo ko liiree su borom defal ma suturas man maa ngi def ci biir dakaar benn conférence boo xam ne wallahi asim ak weeru koor wii kooku délégation dana ñëw fii bi ma def ko Thiamouss bañ ñëwee ba toog ma amaan ndimbalal biñ présenté ak délégation sama diggante ak ñoom tollu ne sama diggante ak sëñ bi ba tey muy beneen accès ci ma ma posé benn question bu gàtt ci conférence bi dama leen Sénégal daa bëgg a mel ne Europe ci benn soxna ñaari doom buñ ko weesu mu ne ah ma ne ko xanaa xamoo ne. Europe bi ñu daan naan yem ci ñaari doom dañ ne la bu fa doom dee dañu tëj baay parce que dee doom bu fa dee ci ay secteur rek kan lay dee nii ci ay choléra ak ay mbas déedéet nañ fexe ba àgg foofu nañ fexe ba bu fa fii Sénégal bu fi doom deetee ñu aar pañ mi ba kenn du ne lu ko rey ndax dafay wut la dee gan bi ci des doom balaa judd foofa am na benn kees bu ñu koy woteel ci seen budget général xale bi buy jur day am compte boo xam ne ci bis boobu day am compte bu ko mën a yor nañ ci gaaw ñi wax loolu nañ nañ taxaw ci loolu bi ki des tubaab yi ñoo taxaw man li may wax nii 2003 la maa ko seetaan ci TV5 benn tubaab génn ne li liy problème am mooy daa mënut a waat ne doomam yee ci kër ga mooy seen baay bi dalil la preuve mooy nee na moom du fanaan ci kër ga seen yaay du fanaan ci kër ga ba tey kon léegi nañ fexe ba waa Sénégal di def noonu. léegi nag li naftarad masala pour nekk masala iftiradiya masala iftiradiya mooy soo soo soo tëralee sa question ba noppi sa xel ak war a tontu ma ne leen choléra bu dikkee ci sunuy doom ñaata fi daan jël lu baree ngas ñëw jël léegi boo amoon 30 ans man 30 doom yooyu bu ñëwee jël seen wàll boo sàggane juróom boo buñ ne diwa jabo fukki doom dañ la ji bu bu judd ba ba dee wataa ko fii mën a fiir wala mu tàbbi ci ndox wala mu tàbbi ci lakk waaye wóor ta dee ndax ñun bu ñu leen diiree mbagg kon mantaqiyan dana mën a dem déedéet bi ci des mooy bu ñu leen diiree mbagg dañu arrangé parce que coro coro ci tubaab dafa dagal coro alxuraan ñu ko tere wala mu taxidaati axdaani wa tamit leen coro léegi comme ñoom dañoo dajal ak cooro nga xam ne ngay benn benn mariage église bi nga xam ne nga dem ci état civil bi ngeen def certificat bi kooku rek mooy sa jabar ñi ngi des ñëpp nag mën nga am 30 yi ci koñ ba yoo xam ne kenn du ko ñun nag dañuy réer tëdd xëy jàpp dem ci jàkk ja bu añ jotee ñu añ ak soxna yi bu reer jotee ñu reer ak ñoom boo génn ñu naan la foo demoon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh